wasalaatu wasalaam ala ashraf al mursalin mbokk yi nga xam ne yéen seetaan seen émission bii di kàddug daara ci seen site bi di Rafah TV ñoo ngi leen di fàttali tey ñoo ngi ñëwaat ci beneen daara ngeen fas yéene ci ànd ak Cheikh Bachir Mbaye muallim al Quran daara alim xabi Touba Sourah ñu ànd ak suñu Cheikh naa ci bi ñoo ngi ànd ñoo ngi am mbégte a contentement bu baax yéen ñi nga xam ne yéenay topp seen émission yii di kàddug daara ñu leen wax noonu la rek ngeen koy gën a bàyyi xel te di gën a abonné ci chaîne bi di Rafah TV ngeen di gën a jëm suñuy émission dana tax incha allah ñun ñi nga xam ne ñoo ci liggéey ñu xam ne lii fii saf na leen ñu fii ci daarul huda li tahfiz alquranu karim ci njiital Serigne Khadim Ndiaye ñu nekk fii ci corniche su Guédé incha allah def yeneen ñi nga xam ne noonu lañ daan barab rek mooy fas yéene dugg ci biir ànd ak moom waxtaan wi mbokk yi nag fii nag nga xam ne mooy daara alquranu karim yaakaar naa lépp luy baax ci àdduna ci daara gën a jekk yaakaar naa ko bu ñu waxee baaxiyaatu saalihaat dëgg daal mooy alquran almaal wa banu zinatul xayaatu dunia xam mooy li nga xam ne mooy yóbbalu adduna ak alaxira incha allah dañ koy def kom niñ daan defee ci mbaare bi dugg ci biir xool ki nga xam ne moo fi nekk nan ban coono lay jànkoonte ak daara ji ak ban matuwaay lay teg pour xale yi mën a xam li ñuy jàng hullati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil uh, wa rahmatullahi wa mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan seen émission bii di kàddu daara ñu ko daan defee ci yeneen barab yi rek daan ànd ak mbokk yi ci seen site bi Rafah TV ci Cheikhna ci caméra bi ki leen koy dégtal seen mbokk seen xarit Mouhamadou Bachir Mbaye daara alam xawe Touba Sourah tey ñu ñëwaat fii ci beneen daara boo xam ne moo la ñu wax daarul huda li tahfidul qur'ani karim wa tarbiyat islamia ci njiital Serigne Khadim Ndiaye mi nga xam ne jàmbaar la joo xam ne mi ngi jàng nekk ci daara yi di jàngale alquranu karim comme ni yeneen daara yi di jàngale mu nekk koo xam ne tamit macha allah ko ci ràññiku la di ci def ay résultats yu bare bare tey nag moom lañ seet incha allah fas yéenee ànd moom ci liggéey bi ñoom ci yëg seen bopp baax a baax macha allah ak nuñ ci doxee daal noonu la ñuy fas def incha allah dañ koy jox mu nuyoo bu nuyoo ba noppi ñu woo benn xale mu tëjul ñu jataay bi ñu ànd moom ci waxtaan wi asalaamaaleykum wa wa barakaatu wa barakaatu Euh, jërëjëf seex Bachirou Mbaye ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar euh, di jiital ci nuyu bi ak ziar bi Serigne Mountakha Bachir di ñaan suñu boroom mu yàggal ko fi lool te wéral ko ak booleem xalifa généraux di nuyu bu baax a baax euh, njabootuk daara yi bu ci tuddee rabita bi rek waaye ci farxu bi nga xam ne fi lañ bokk muy tuuba waaye xale bi xam ne ci la ñuy wuy ji muy Sourah Guédé li ko wër ci njiital sëriñ Xaadim Touré ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak mboolem sëriñ daara yoo xam ne ñuy bokk ak ñoom liggéey bi mm-hmm. euh, di nuyu bu baax a baax sëñ Basiir ak sa caméraman yi nga ñoom seen Cheikh nag ñoom ñëpp mm-hmm. waaye di nuyu waa daara ak mbooleem way juru dongeeg yëpp mm-hmm. njëkk loolu di nuyu suñu sëriñ suñu wasila di kër sëñ Daaru Asan di sëriñ Mbàkke Taala moom sëñ Taala ñu ngi koy ziar bu baax lépp ci ndigalam la amee di nuyu ba tey suñuy way jur yi ñu xam si ñooñu teete nàmpatal ñu ci liggéey bi di nuyu ñëpp rek bàyyiwuñ kenn di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ko suñu xaarim waxee macha allah ñoo ngi koy delloowaat nuyoo moom tut baax di ko jaajëfal ci mbégte gi mu ak nangu gi tamit kazalika nangu télé bi seet si ko donte ne amul benn ngaañ bi ci ne waaye nag macha allah wax dëgg yàlla yitte la joo xam ne day wane yëg-yëg gu nekk ci moom ak bëgg alxuraanu karim ñoo ngi koy ñaan moom tamit yàlla na suñu borom gën koo kàttanal gën koo dëgëral ba sàmm ko aar ko l mu bëgg ci gone yi ba tax mu leen jàng alxuraanu na ko sama borom defal am yar ah amul njub ba ma def kadalika boole ci nekk ñoo xam ne ay borom xam-xam la doon yàlla nañ ko sama borom defal subhanahu wa taala ni mu ko waxee ne ñoo ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom ñëpp la nuyu rawatina waajuru donga yi nga xam ne ñoo fi am donga lu mel ne daaral huda macha allah joxe ngeen seen doom foo xam ne macha allah yaakaar naa buñ bàyyee rek te bañ yàkkamti rek incha allah li ngeen ci am te mooy amab xam-xam te jub te yaru ñu tijjul jotaay ci bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم macha allah barakallah fii sëñ Mor Ndiaye ci alxuraan jooju nga xam ne moom nga tijjee mbokk yi comme ni ñu ko doon waxee rek ñoo ngi leen fàttali ne ñu ngi fii ci daara Serigne Khadim Ndiaye yi nga xam ne moo nekk fii ci Guédé di Daarul Huda ñu fekk fii Serigne Khadim mi nga xam ne moo yor daara a fas yéene ànd ak moom comme ni ñu defee ci yeneen barab yi bi nga xam ne moom la gone gi tijji alxuraan ñu ñëw fàttali nag seetaan seen émission bii di kàddug daara ci seen site bi Rafah TV ngeen ànd ak seen xarit seen mbokk Mouhamadou Bachir Mbaye daara alim am rafet bi macha allah mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun toujours ci seen émission bi di ñu ko gën a bàyyi xel bu baax a baax ndaxte seen mbégte mooy suñu tax a am sawaatuma macha allah seen xaarim ginnaaw bi nga nuyoo ba noppi ñoo ngi leen laaj Daarul Huda tur yi nga xam ne moom lañ njëkk ana tur yi fan la jógee ak lan moo ko waral Euh, jërëjëf Cheikh Bachirou Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu euh, waa Rafah TV ak mboolem ñi nga àndal ñëpp ñoom seen Cheikh naa ñoom ñëpp euh, turu Daarul Huda mi ngi bàyyi koo ci mën nañoo mën nañoo wax ne Daarul Huda bii mooy numéro 2 ndax am na boo xam ne fa lañ jànge boo xam ne ci bànqaas yi sëñ Modou Gueye la bokk muy Serigne Fadilou Ka yoroon internat fële ca Dakar parcelle boobu Daaru Huda la tuddoon yàlla dogal na bi mu jëmee mag nekk xalifa kër kër baayam euh, daal di soppi liggéey donte mu ngi ci alxuraan ba léegi ci noonu nag lan ko diise suñu yittee ndax boobu biñ sance daara ñi ngi bëggoonu tur dem wax ko ko na ko ñun dañoo bëggoon wéyal liggéey bi tuddee daara ji Daarul Huda mu am ci mbégte lool daañu ci ñaanal kon turu Daarul Huda boo koy xool foofu la foofu la bàyyi ko maanaam daara di jànge ñun Daarul Huda daara ji ñu yor tey Daaru Huda la tudd barakallah fi kon dégg nañ ko waxee fi nga xam ne foofu la turu Daaru Huda jógee muy nga daara joo xam ne ne mën nañoo moom mooy mag bi mooy bu ñaareel bi ñuy nga xam ne ma nekk ca parcelle di nuyu sëñ Xaalim Ñang ñooñu nga xam ne ay jàngalkat alquran la ñoo xam ne daanaka képp ku mel ne ñoom rek di ab daara ak foo nekk ci Sénégal ñoo leen nuyu baax bàyyi xel ñaareel ba Sëñ Xaadim li nga waxee ne daara ñu ngi ko tuddee daarul huda léegi ginnaaw bi nga tijjee daara ji daara ji ana yan matukaay lay dox gone yi day jàngal alxuraan gone yi ñu mokkal ko noonu dem wala gone gi day ñëw ñu jàngal ko alxuraan boole di ko jàng alxuraan ak xam-xam wala ci benn méthode lay dox waaw euh, jërëjëf Cheikh euh, Bachir waaw euh, daara ji dañ fiy jàngale alxuraan ci fànn bu nekk des na ko tajwid des na ko baral comme ni ko xamee njàngum cosaan Euh, dana des na fi mokkale alxuraan it des na fi jàngale xam-xam it loolu yëpp ñett yëpp am na fi waaw am na ñoo xam si ñi ngi ñu mokkal ak ñi miin ak yëpp ñu ngi commencé tëralu tasooru sixaar ñu ngi jàng naxju am ñuy jàng ba tollu risaala kon loolu lépp ñu ngi koy ñu ngi ci nab nabi ak mboolem ñi ñuy jàppale ñëpp waaw ñu ngi koy waxaat léegi ginnaaw bi bala ñoo agsiwaat ci gone yi ban fan ngeen di jaarama ba yëg na ma ko léegi yéen ci ban méthode ngeen di xale bi ba téye ko xale bi bu ngeen ñëw ku gis bëgg doomam rek dañu doon indi damaa bëgg sama doom rek nga téye ko wala moom day lay wax ne sama ci moom ngay doxee ci daara ji képp ku fi ñëw rek ci yoon koy teg ba ker nga am li mu bëgg wala waajur yi ñoo lay imposé ni ngay doxee yow waaw déedéet waajur ni ñu doxee mhm. daara ji dafa am ay ay yoo xam ne ci la ñuy ci la ñuy tënku maanaam dañoo am benn constitution boo xam ne ci la ñuy tënku ku ñëwit euh, bëgg sa doom jàngit des na la gaaral euh, suróot yooyu charte yooyu su su su la doyee nga bàyyi ñoo xale bu fekkente doyulaat nga euh, xool feneen mais benn waajur du ñu imposé nañu nii ngay def nii ngay def nii ngay def. moom internat la wala dafa jaxase lépp daara ji. waaw am na internat mooy ñi fi féete mhm. am na ñoo xam se dañuy jàng di ñibbi waaw ñaari ñaari kii yëpp am na fi. am waaw tabarakallah kon dégg ngeen mi ko waxee mbokk yi kon Daaru Huda mooy taxawaay bu am solo boobu lay def day jàngal xale yi ñii internat lañu fi féete ñii dañuy jàng ko wax mooy externat ak internat ñeneen mooy ci biir daara ñeneen lépp di leen ci biir daara ñeneen ci ñibbi ñaareel ba seen xaarim ana yow lan moo la dugal ci njàngal ma alxuraanu karim da jàng alxuraan rek ñëw jàngale wala da jàng ba noppi Ah? xool xool xool amoo loo def nga ne xaaral ma ñëw jàngale si ana la moo la dugg ci njàngum alxuraan. ci laaj bu am solo boobu euh, li ñu dugal ci njàngale dañuy wax ne euh, ndimbalu yàlla la maanaam gannaaw lépp ndimbalul yàlla la. Mhm. te yàlla xëy na moo namm ci ñun ñu ñu nekk ci toolam bii mais ñun bi ñuy jàng mhm. comme li daal dong yu bari daf ñoo daloon amoon nañ beneen gëm-gëm euh, di def leneen. maanaam visé woon na leneen daal lu dul jàngale mais bu la yàlla naree dimbali bu la yàlla naree taw tawféexal euh, faw fu wax na fa ngay jaar fa ngay jaar ndax ñun bi jàngee pare bëggoon nañoo changé def def commerce maanaam di génn ak ñëw di yokkal ma jaay la ak yooyu euh, ñu amoon nan kii boobu pour pour soobu ci waaye nag suñu borom moo diir bu néew rek mm-hmm. ci la soppee am kun waxal wala boog am ñoo xam dañoo imposé yu mel nii fekk ñu jàng ba ñëw doon bind kaamil ak yu demee noonu ci lañ duggee ci ci mbirum jàngale te ba tey jeet ñu ngi koy ñu ngi ci am mbégte di ci di ci di ci kontaan ci euh, nekk giñ ko nekk déedéet rëccuwuñ ko benn yoon dañuy dañuy rëccu sax lu tax ñu doon xalaat def def commerce def macha allah barakallahu fiik borom bi subhanahu wa taala mu wax ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun borom bi subhaanahu wa taala moo ko wax alxuraan ji moo ko wàcc moo koy sàmm sàmm gi koy sàmm nag nit ñi li ñuy bari bari bari bari ak li ñuy yàlla dala leen da cee bokk macha allah gis mooy li nga xam ne moom la def te gis dégg nga ni ko waxee am na ci bu baax a baax mbégte te nga sax mi ngi réccu sax lam doon xalaatee ne doon xalaatee daa bëgg a liggéey wala dara macha allah kon mbokk yi dégg ngeen loolu nga xam ne pas-pas boobu nga xam ne moom la wax moom suñu xaarim amee ko ci waaye ñaareel ba tamit li tazalika ba tey danaa la laajaat foofu suñu xaarim li tax nga ne yow réccoo dugg ci dugg ba tey jii lan la da nga la a wuti ca biti mooy wàllu koom da cee am wala lan moo lan moo tax la nga doon bëggee liggéey maanaam li tax réccuwuñ ko benn yoon mooy am mbégte lool ci liggéey bi mhm. gis ne liggéey la boo xam ne liggéey bu màgg la mhm. ndax euh, yonent bi a alayhi wa sallam wax na ci xadis ne mhm. inna ki nu mu tuddati xayrukum man taallama alquraana wa allamahu mhm. noonu la ko waxee mhm. xay na loolu bokk na ci li li tax ba tey ji rëccuun ko euh, amagun ci nag comme nin ko bëggee dëgg-dëgg ci ci ci mbiru koom-koom waaye nag ñu ngi ci sant yàlla baax am ñoo xam ne ñi ngi jaara suñu loxo di mokkal alxuraan waaye ñi ngi jaara suñu loxo di tegu ci yoonu siraatal mustaqim kon loolu euh, mbégte ci ñun tawféex la boo xam ne xëy na bu nekkoon ci leneen mën nañoo man nañ ko am mais du gaawee nii du gaawee nii kon loolu ak sant yàlla la euh, moo tax daal du rëccuñ ko benn yoon comme daal comme ni ñu waxee kon nekku na koom-koom moo ko ci dugal waaye li ko ci dugal mooy xayrukum man taallama alxuraana wa allama man taallama nit ku nekk daalika boo soñoon nga bokk ci ñi gën ci nit ñi mooy leen melokaan wi gën a rafet te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ki gën ci nit ñi mooy ki nga xam dafa jàng alxuraanu karim ba noppi di ko jàngale loolu la wax te mooy wax ju wér te sens la moo ko wax loolu moo ko dugal kon ci jàngal alxuraan macha allah seen nga nekk mooy leen war boo xam ne fa nga war nekk ah ak booy tàmbali ni boobu yëpp nekk ci xam ne léeg-léeg booy tàmbali ñenn ñi bu ñu dem bu ñuy tàmbali ay ñaari xale la ñuy loolu mën nga cee nekk daanaka ba at keneen la ci fekk si coono yëpp ginnaaw bi nga ko jànkoteel est-ce que fi mu toll nii ba tey ji am na barab boppam masalan fi mu nekk nii daara ko moom wala du ko luyee wala wala nu mu demee waaw jërëjëf ci laaj ba am solo boobu waaw doog a moom metti na lool na lool ñaara ku yàlla dimbalu dëgg-dëgg nga mën a muñ amaana doo fa doo doo ko xaar ndax bari na sama kalaaf gi ñoo xam ne tàmbali woon nan mais bi jafe-jafe yi ñëwee rek ak seen situation ni bindoo dañoo mujj daal di soppi so soppi eh, liggéey bi kon loolu sant nañ ci yàlla bu baax ba ñu eh, yàlla taw feexele ban jaar sote jaar béréb boobu mais metti woon na loolu mais nag suñu borom moom loo sumb rek te gëm ko rek moom mu jàppale la ci eh, waaw daara ji fii ñu nekk nii dañuy dañ dañ koo luyee maanaam moomuñu ko weeru dee dafa am lu nu warlu ak lool ak boroom boroom kër gi dafa am loo xam si moo war suñu diggante kon fii ñu nekk dañ koo luyee mais teewul nag am nañ barab boo xam ne mi ngi ci boori Baxdaad mhm. benn quartier bu ñuy wax Rabina Alhaji Sarr mhm. foofu la nekk mais fii ñu nekk ni actuellement dañoo dañoo dañoo luyee barab bi di jox borom dara macha allah mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen émission bii di kaddu daara ñu ngi leen fàttale tey ñoo ngi fii ci Guédé ci corniche Guédé ci daarul huda ci daara Serigne Xaadim Ndiaye mi nga xam ne mooy kilifa gi moo fi nekk di jàngal alxuraan karim ànd ak ci xale yi macha allah moom lañ seeti say ngeen ànd ak seen mbokk seen xarit Mouhamadou xam ne ñoom la ñuy jànkonteel di luyee borom waxee daara ji mi ñuy taxawal barab boo xam ne pour barab boo xam ne daara ji ko moom xat xasee ba dem ba ilaa mi diin yaakaar nañ incha allah fa la daara ji fas yéene sax du fa jógee ñoo ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàdd ak a daara nekk ba fëlee ci Amérique ku mel ne Cheikh Abdou Samane Mbaye ak ñi xam ne ñoom ñoom lay àndal ñu nekk ñoo xam dañoo jiite association boobu ñuy wax dimbale daara Sénégal ñoo ngi leen woo baax baax ñu jàpp ci liggéey boobu yaakaar naa alxuraan barab a ngi nii daal boo xam ne daal loo fa waay def incha allah dana meññ te ëllëg doo rëkk loo ko fa doon defee ñaara ba Sëñ barab boobu nga wax comme ni nga waxee ne yéen a ngi defar barab boobu yow yaa koy def sa coobare bopp euh, mhm. euh, jamono ji tàmbali nañ ko yaakaar naa boo xoolee image yi mi ngi noonu ngay ngay ngay ngeen di jàkkaar lool ñoo ko tàmbali ak suñu suñu moyen bopp mhm. euh, ñàkkul nag ay benn benn benn yoo xam ne mhm. Eh, jàpp nañ ci waaye li ci ëpp daal bu doon 100 pour cent la mën na wax ne quatre-vingt-dix yi ñu ñoo ko def waaw eh, di ñaan yàlla moo gën ñoo kàttanal ba liñ ko bëgg yëpp ñu amee ko waaye nag comme ni nga waxee ñu ngi woo arniyaaw yëpp maanaam way defal yàlla yëpp ñu ngi leen di woo ci liggéeyu alxuraan boobu eh, buñ fa demee rek incha allah rabbi luñ doon am fii résultat buñ fi doon am 100 pour cent gëm nan na buñ demee fële mën nañ fa am cent pour cent ndax te fa lay gën a yombe ci liñ bëgg ak ak suñ diggante xale yi kon ñu ngi ci woo ñëpp ci liggéey boobu ci liggéey bi yàlla la boo xam ne fii ba bis penc di taxaw daara lay doon incha allahu rabbi waajuri xale yi moom lan la ñuy xaar ci liggéey boobu ñoom. waaw waajuri xale yi eh, jàmbaar lañ lool. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax. Eh, ñu am pësteef lan ñu takku lan xam ne liggéey bi eh, biñ koy tàmbali mën na wax ne siiwaluñ ko bu baax dañoo ñëw rek def suñ kii tàmbali bu defee nag. dañuy wax na ku tàmbali doo yeggal biñ tàmbalee nag ñëpp gis na na tàmbali nan léegi nag foofu lañ leen di xaar am na ay benn benn yoo xam si yàlla dogal na ñu ngi ñu ngi ñu commencé di di yëngu yëng nañ ko ñu ngi commencé di yëngu kon loolu xëy na buñ ko teeloon yëg daan indi seen seen seen seen contribution seen seen seen participation ci liggéey bi mais nag ñàkkoon a yëg gi xëy na loolu moo tax euh, ñu bëree bëri kéegun waaw mën nañoo wax ne ñu si bari yëg nañ ko bu doon téeméer mën nañoo wax juróom-ñeent fukk yëpp yëg nañ ko ndax am nañ benn benn benn benn majmoo boo xam benn groupe bo xam ne moo leen moo leen lëkkale xam ne fa la ñuy nase di sa noccee Euh, loolu am na ba liggéey yu bari léegi engagé wu nañ pour taxaw ko ci daara ji comme nin nin ko xamee ci daara Touba yi kon loolu am na ci ndimbalu nag ki xam si moo jiitee xale bu sura di sëriñ Xaarim Touré xam ne foofu la ñu wuy ji ñu ngi koy nuyu au passage ko ziyaare bu baax a baax a baax loolu taxaw na fi taxaw na ci ba lu baree bari euh, di am ci yeneen daara ci kuréelu wayjuru xale yi moom bokk na ci ñu ko taxawal fii. waaw macha allah comme ni nga ko waxee ci waajur yi ñoo ngi nuyu waajur yi ñoom tamit ñoom ñi nga xam ne ñoom indi seen doom fii nga xam ne ci Daarul Huda la jox ko Sëriñ Xaadim ngir mu jàngal leen ko alxuraan yaral leen ko ñoo ngi leen wax liggéey bi noonu la wax dëgg yàlla waajur yëpp nañ gëm ne gone ay doomi jullit lañ te doomi jullit war a jiitu ci ab ne ñi nga xam ne dañuy doon ay jullit seen doom doon doomi jullit ñool bi ko yóbbu leen ci yeneen école ñuy jàng leneen loo xam ne ah, xalaat yi doomu rek la loolu moo wax dëgg yàlla du xalaat te du ak nite kay daalika tamit te du lislaam wax dëgg yàlla lii lislaam dëgg mooy nit boo ko juree tuddee ko turu baax da nga koy indi ci daara fu mel ne daara huda mu jàng alxuraanu karim bu ko mën a mokkal ñu fexe ba mu yaru yu bala yarub diina loolu mooy solo si macha allah di sant waajur yëpp macha allah di leen wax la nañu fexe ba tamit kay daalika ñuy jàpp ci daara di xool yi nga xam ne ñoom la daara di am ñuy fexe ba koy def fexe ba waajur wu ne boo indee sa addiyee bu ca yam waaye ba daara ji sax yooyu ñëw booy fay addee na fexe ba na nga àndaale lu mu bon bon keesuk saabu ah nga def ko addee alquranu karim wala nga àndaale keesuk moom def ko addee alquranu karim wala sax nga fexe ba no noo jàpp ci daal ndax daara dafa li ñu war a mën a jàpp dafa bari bari na loolu wax dëgg yàlla te waajur yi daal ñoom ñoo ci mën a jàpp ndax daara ñett ko seeq kii jàngal alquran a ak xale bi jàng ak waajur fi indi doomam ñoom ñett ñi képp ku ci xaw a yaafus rek daara du baax jàngalekat bu tayale xale yi duñu xam dara xale yi bu ñu bañee jàng njàng du baax waajur yi tamit bu ñu ënnee seen doom te toppatoowuñ ko njàng mi du baax ndax wa ku fi indi sa doom te toppatoowu ko yaakaar na sëñ Xaadim kon bu ñëpp defee ne moom ke indi seen doom ba noppi te dara ci daara ji yaakaar naa moom léeg mu teg ci daara ji ni mu lijjanti lu jox waa këram macha allah kon waajur yi nañ ñaan bàyyi xel ñu gën a jàpp ci daara yi tabarakallah di gën a soññu xale baax a baax macha allah ngir loolu mooy tax gone sawar ci alquranu karim ji di wax xale yi tamit ñu gën a góor la ci njàng waaw xam ne alquran rek moo fi nekk gone li mu war jàng mooy leen diineem bu ko defee incha allah fale la tastaxil bi rizq bu ko def comme gone yi léegi fas yéene yar dara ak naan damay wutub xaalis ak rab bi njaam rab nangam nangam nangam yooyu nga xam ne donga yi damay wax ne ab donga daal buy jàng alxuraan concentré wu rek li nga bëgg lépp daal dafa mel ne yow sa wërsëg day mel ne yàlla la ko dencal ab compte bancaire boo paree mu ne la bisimilah daal lay retiré lépp jox la da ngay jàpp ne daal macha allah loolu noonu lay mel tabarakallah Sëriñ Xaadim li ñuy waxaat mooy ala daara ji léegi ginnaaw bi nga xam ne waajur andi na fi gone daara ji saytu ko jàngal ko alxuraanu karim léegi gone gi bu ñu bëggee xam ba xam mokkal la ci yoon matuwaay lañ koy teg dañuy xëy suba rek daal di wax waajur ne leen xale bi mokkal na dañuy def conférence wala dañuy def nangam wala gone gi mokkal na day jàng xam-xam wala nan ngeen def ba waajur xam ne gone mokkal na alxuraanu karim waaw jërëjëf Cheikh Bassir ci euh, laaj am solo yooyu ak it euh, commentaire yu am solo yoo xam si def ngeen ko ci ñaan gone yëpp ñu bàyyi ko xel topp ko euh, waaw daara ji am na benn méthode boo xam ne moom la ñuy utiliser bu nu amee ñu mokkal bokk na ci daara yi xam si moom moom lañ dendal Euh, muy suñu suñuy suñuy naataango des des na leen fa yóbbu mhm. ñu téyel leen ko téere bi ba mu jeex tàkk mhm. am na ñu ko tàmbali am na si ñoo xam ne seet daaw defoon nañ ko mhm. kon loolu bokk na ci beneen bi mooy euh, shahada boobu nga xam ne nga xam ne suñ muntaxaa da koy joxe màggal gu jot euh, boobu it chaque année bëgg na di ca di ca représenté wala boog di ca di dugal ay xale yoo xam ne ñoo bokk ci ci ci ñi mokkal Euh, ren ji sax yàlla dogal am na suñ benn xale boo xam ne bi mu demee yàlla dogal na jàll na bokk na ci ñi amoon shahada juróom fukk ak ñu topp euh, moom bokk na ci ñi am shahada bi muy muy shahada bi nga xamante ni moo moom ngay gis nii moom moo nekk nii kon shahada baa noonu euh, xale bi sëñ Alxaaji suñu borom barkeel ko moom it bind na kaamil ba jot na ko it sëñ Muntaxa ah, ba mu ñaax ko sant ko na ko mu góorgóorlu lool ci ci ci xam-xam waaw loolu jot na am na ay moroomam yoo xam si ñu ngi bind ci daara ji mhm. am na si ñoo xam si incha allah rabbi ñu ngi waajal beqi am na si ñoo xam si mokkal nan mhm. waaw loolu lépp ñu ngi koy ñu ngi ciy nab nabi ci daara ji di ñaan suñu borom mu gën ñoo kàttanal ba liñ yéene ci xale yi mhm. eh, suñu borom dogal ko sotti lépp te ñëpp fekk ko kon li daal mandarga la yoo xam ne daal day wane na gone yi ñoo ngi mokkal alxuraan ci daara ji mokkal gu wér a wér ndaxte lii mën nañu mooy shahada boo xam ne mën nañoo xam ne shahada yoonu murid la mooy seede ne daara ji bokk na ci daara yi nga xam ne ren am na gone yu génne donte am na yu des ndax lan shahada bi ñi koy joxe dañuy def daara ju ne benn liñ fiy jël waaye bu doon def lu ëpp loolu daara ji mën naa gën lu ëpp loolu mooy ki nga xam ne moom day wane ne Sëriñ Muntaxa moo ko fi jox moom ne moo fi nekk Sëriñ Tuubaa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba dund dund lu dund yu bare bare barke Cheikhul Khadim yàlla na dund dund dund lu bare bare rek ba ñëpp jàpp ne na ko sama borom def wax dëgg yàlla na yàgg xam fii njariñu lislaam la rawatina njariñu alquranu karim te alquran bu ñu wax a ngi dekkal loolu di soññ nit ñi ñuy jàng alquranu karim di soññ nit ñi ñu gën a góorgóorlu ci xam-xam dégg nga macha mun laatee am barke macha allah ñoo ngi lay ñaan si alhaaji jam moom yow na yàlla sot sotti barke sa kaw yàlla nga dem ba ma leen sëñ daara bi di yeneen ñeneen di génn sa loxo nga leen jàng alxuraan karim ñu koy bind macha allah lii sëñ sëñ shahada bi nga xam ne mooy wane moo alxuraan daara ji moom day def képp ku la am na daara bu muy joxe boo xam si curu daarul huda lay génne am na am bu muy joxe mm-hmm. Mm-hmm.

ji mi ngi promouvoir yooyu di ko def ak yooyu. waaw waaw sëñ daara ji mi ngi def loolu ay conférence mhm. euh, gannaaw bi yóbboo xale yi ci daar yi ñuy dendal ban téye leen kaamil bi mhm. ban seede na mokkal nan mhm. am na bis boo xam dañ koy tànn maanaam def ci benn conférence boo xam ne mbégte lay doon boo xam ne feeñal yéene la na xam ne ne euh, bis bi ni mu xatee lu toll ci gone yi ni takkoo ñëpp bëgg a tari loolu lu xaw a lay doon mais nag feeñal yéene la ak feeñal tuuti ci li nga xam ne moom la daal di def ci moom euh, ngir gone yi nga xamante ne euh, mokkalagun mhm. wala wàccagun ñoom it am courage boo xam ne ëllëg danañ bëgg liis mm, xam ne seen moroom am nan ko ndax gone moom waaw forme xale xale bi ci diine mhm. ak lislaam ak njàng mu wér incha macha allah mbokk nga xam ne yéen a seetaan seen émission bi di kàddu daara ñoo ngi leen nuyeetu bu baax baax te di ziyaare di leen fàttali ne macha allah yéen a ngi ci émission bi ñu ngeen ci ànd seen mbokk seen xarit ma alimul xabir ñu ñëw fii ci Daarul Huda nga xam ne moo fiy jàngal alxuraanu karim ñu nga xam ne am nañu ak wala ak umpale ci daara ni muy doxee ñu xam ne daara yi nekk ñu fi loolu jàngalkat alxuraan dañuy jàngal alxuraanu karim li wajhillahi taala da leen ci fekk ngir ne yàlla ko dogal ci ñoom waaye amul dara koo xam ne day jàngal alxuraan di ci seentu jàngale rek te yàlla tax macha allah dégg ngeen ni ko waxee nga xam ne moom la wax ne daara ji moom lay ah, ngir leen ngir bégal ci xale yi nga xam ne ñoom mokkal alxuraan karim ci at ci daara ji waaye nekkul bis boo xam ne dañ ñaan gone gu toog ku ne day tari kaamil dañuy wax gone gu ne toog ñu wax la nga barkeelu ñaari sumun wala benn sax wala ñett ba ñett ngir lan nga mën a bég say waajur yi nga xam ne ñu leenu ci daara ñu xam ne seen doom mën na lii loolu moo tax ñu ko def mbokk yi allah yéen ñëpp ñoo ngi leen woo ci bis boobu incha allah bi nga xam ne moom la daara ji di taxawal mu nekk yaakaar naa la le 30 incha allah waaw waajur yi xam naa di leen di leen sant rek di leen wax ne liggéey baa ngi noonu liggéey bi seen liggéey la ndax daara niñ koy faral di wax rek ñett ñoo ko seq muy kiy jàngalu muy waajur yi ak kiy jàngale muy suñ daara bi ak xale biy jàng muy dongo bi kon ñett ñooñu kenn mënu cee dem bàyyi moroomam kon ñu ngi leen di woo ci liggéey bi di woo mboolem ñoo xam ne eh, yàlla xiir na leen ci jëf ju baax ñu ñu koy def te te yàlla tax ndax kat man amila saalihan fali nafsi lu waay def rek eh, boppam kon ñu ngi leen di woo ci liggéey boobu di leen sant bu baax a baax a baax yéen waa eh, Rafah TV ñu leen di sant bu baax di leen di gërëm waaye di sant bu baax seen seexu naa xam naa da ñoo bett ci ci ci ci émission bi ndax boo déggee wax ji rek xam ne eh, nekkul wax joo xam jun waajal la waaye nekk na koo xam ne miinul micro loolu lépp feeñ na ci kon ñu ngi leen di jéggu lu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, Cheikh Bachir kon ñu delloo la kàddu jërëjëf macha allah jërëjëf sëñ xaadim comme ni nga ko waxee rek ñoo ngi woo waajur yëpp ci rawatina ci liggéey bo nga xam ne jàpp jàpp bu baax a baax a daara ji ni mu bëgg ko wax dëgg yàlla location li ñu luyee daara ji wax dëgg am na am xañ na ca wax waajur yi ñu jàpp ci bu a baax ndaxte wax dëgg yàlla daara moom ñu wax continuité la mooy loo xam ne daal amul fu mu yem te boo jëlee xaalis boo xam ne daanaka mën na ñoo da nga koy sànni àll bi te wax dëgg yàlla te xañ na ci daara kon ñu fexe ba daara ji liggéey ba la nga xam ne moo ko moomal boppam ñu fexe ba incha allah rabbina mu àggale ko ak jàmm waaw ñu ñu nga xam ne moom moo fa bu daara ji bu soobee yàlla li ñu bëgg bu li fi lépp noppi incha allah donga yeeg suñ daara beeg ñëpp fa la ñuy dem xam ne seen lépp fa la leen fekk te yaakaar naa booba la liggéey bi gën a ñokk ci lay gën a baaxe macha allah di gërëm suñ xarit mi nga xam ne ma macha allah moom moo ñu dalal te wax dëgg yàlla te eh, eh, xat na lool ndax tam suñ daara ñu koy waxee dañuy ñàkk jot lool lool sax ndaxte liggéey bi ak njàngale mi ak yenn yi ak taxawaayu gone yi nga war ci gone yi di leen toppatoog lépp macha allah ñoo ngi koy masawu coono bu baax a di sant di gërëm mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan seen émission bi di kàddug daara seen site bi Rafah TV ngeen ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit Mahamadou Bachir Mbaye daara alimul xabir Touba Sora ñu nga xam ne yëpp yéen di ko seetaan toujours incha allah ñuy jox suñu xarit incha allah mu wax kàddu mujj rek incha allah ñu ñaan def yeewek ba beneen yoon allah rabbuna waaw jërëjëf Cheikh Bachir xam naa kàddu yu mujj mooy di leen sant bu baax di naan ñëpp abonné ci site boobu di Rafah TV di ko topp bu baax ndax ñoom kat euh, ñi ngi jàppale daara yi ndax lu bari na nëbboon na ñoom ñi ngi koy feeñal mu nekk yoo xam ne luy arrangé daar la di leen jàppale kon ñu ngi leen di ñaan suñu borom teg leen loxo ndax bu leen tegee loxo rek daal di daan bëgg li daan ko am. maanaam loolu français naan la voix de sa voix. yéen yéen kon yal na yàlla barkeel. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw macha allah Xaarim comme ni ko waxee macha allah ñoo ngi lay sant bu baax yow tamit la gërëm wax dëgg yàlla wax ji am solo lool. ni mu ko rek waa euh, daar yëpp nañ xam ne Rafah TV moom wax dëgg seen Rafah la nañ koy seetaan baax te di ko baax a baax di gën a soññaat waa وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب